asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi mille mai 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey boo xëyee jàpp daal ku ci nekk ak fa nga génn waaye am na foo xam ne moom ñoo ko bokkale muy assemblée nationale ba amoon ca parcelle waaye balay loolu nag moom li leer ba leer daal kii nga xam ne nii moom ci làmb ji la nekkoon ñu doon ko wooyee le bourse de l'arène moom Xaadim Njaay nag nee na tekki na ay jaajam raase ay bagaasam daal daal di bàyyi làmb ji muy lu bees teq ci sunu làmb mu mel ni ki daal Xaadim Njaay moom boo bëggee dégg-dégg kon daal arrêté na carrière am daal bàyyi na làmb moo tax yëglikaay bi nag ñëw na ci moom nee na ki nga xam ne nii daan na ki nga xam ne nii moom moo di baabooy daan na Eumeu Sène daan na Boy Kayre borom Touba Dakar ba daal bàyyi na làmb kon daal làmb ji dina wéet ndax xaadim nee na arrêté na carrière xaadim Njaay nag yëglikaay bi di sunu làmb ñëw na ci moom ci lu yaatoo yaatu ci carrière ba boo bëggee dégg-dégg daal sunu làmb nee na treize victoire neuf défaite ak benn nil xaadim Njaay am na ko ka mu njëkk a bëreel wala ka mu njëkk daan mooy mama Sonko bàyyi daawur xaadim daan na ko Lac de Guiers 1 ko ñaari yoon Baboy ñaari yoon yoon Daouda Top daan na daan booy kayre waaye ki nga xam ne na ko par décision arbitrale liiru daan na ko moom ki nga xam ne nii moo di xaadim njaay waaye ki nga xam ne nii moom moo daan xaadim njaay wala ñi ko daan zan loo yëglikaay bi ne na daan na xaadim njaay ñaari yoon sunu làmba ko wax lu samay wax ki nga xam ne nii tamit moom moo di Yékini daan na ko Tafa Gueye daan ko Moussa Dioum daan ko Brice Ly daan ko ba ca ambulance ak Ablaye Njaay mu robeel ndiil ba ndiil ba nag sunu làmb ne nag kenn la ko séqal mooy ki nga xam ne moo di Njaga Jóob sunu làmb xëy tey di wax loolu leneen loo xam ne nii nag xaadim da caa jublu ginaaw ba mu bàyyee làmb ndax nag yëglikaay bi nee na xaadim njaay day léegi nag ba mu tekkee jaajëm nee na léegi la mu taxawal lu bees teq lay doon muy tuubaa sécurité daal ca la xaadim jublu taxawal ko muy lu bees maanaam kon bàyyi na làmb ja waaye continué na dugg ci beneen yëngu-yëngu keneen koo xam ne nii moom ah làmbam ca la xëy di ca wax muy Boy Niang booy Niang déw ginnaaw bërki dem bi Lac de Guiers de génnee fa ko neex ne dinaa ko def li ma neex maanaam dinaa ko dóor ba ñi koy force du ñu sonn Boy Niang ne na ko da ngay wax loolu mënuloo ko ndax nag li ma la mën a yëgal day maag yow sama diggante ak yow moom dàquma ci dóor mu daanu te nag combat bi booy ñang ne na li mu bëgg daal mooy ci am mu am ci une minute ak ay secondes yu tuuti ma woon kii nga xam ne mooy Lac ne ko mënoo xeex te doo pënseur ñu ne ko waa yow ñii ànd ak moom muy waa géejuwaay di ko jàppale ndax tiitalu la mu ne loolu kay plaisir la ci man day neex waaye la ci gën a neex nee na maag moom nooy mujj ci géew bi te buñ ca mujjee ña koy jàppale fu ñu mën a jóge moom ca ginnaaw la nuy ne di nu seetaan te bu keroogee dinaa ko woon buddiwu bëccëg loolu la booy ñang xëy tey di ko wax mu mel ni ki kii nga xam ne nii tamit moom moo di am maa Balde wala digganteem ak waa Pikine nee na maag Ama Balde moom jàmm fa am waaye nee na nag Ama Balde bi muy bëreeg saa Thiès wala bu moon noppaloon naa ko ca la nga xam ne nii mooy fa mu war a féete waaye nee na combat moom maa ngi ko ciy woo bu ko neexee daal wala boog na ñëw jàppale ma ci di ca woo tamit sama mag Eumeu Sène moom daal nee na loolu mooy ay waxam waaye Ama Baldé ci côté far moom nee na loolu amu ci lu koy yëngal ku nekk am nga droit choisir la la neex nga nekk ca moom booy Niang moo xëy tey di wax loolu mu mel ni ki daal booy Niang moom boo bëggee dégg-dégg ñëw na ci lu yaatoo yaatu tey ci digganteem ak kii nga xam ne nii moom moo di Lac de Guiers ba ca léegi ko sax booy Niang mu nga fay wax stratégie combat baak match nul ya loolu lépp booy Niang ñëw na ci mu mel ni ki daal sunu lamb tey loolu la xëyee leneen loo xam ne tamit xëy nañ gis ko fii nga xam ne nii moo di ca sunu làmb mooy diggante rëg-rëg ak Gris mu mel ni ki nag samedi ji nu jëm day ca seen TV war nañ fa am ab mu mel ni ki nag fi mu nekk nii bataay ba commencé na de bataay bu méttee métti waaye fañ koy commencé ñi nag sunu làmb ne na samedi la ca seen TV kii moom làmbam lay préparé pour le 9 juin moom moo ja yëglikaay bi di sunu làmb nag ñëw na ci moom nee na moom day fi mu nekk nii de ci mission souterrain daal ca la nekk combat bu métti kon moo ko a xaar moom moo ja bu yoof leneen loo xam ne tamit yëglikaay yi da cee ñëw muy les échos ak kii nga xam ne ni moo di Leewtoo point net mooy weekend bii nag moom loo ci mën a dégg moom assemblée général amoon na ci waaye ba mu amee itam waxoon na xat leneen loo xam waaw la ko waxeloon nag moo di ca fa nga xam ne moo di parcelle mu mel ni ki nag xaadim Gajaga day mañ doon wax naan dana faloog du falu léegi nag leer na naññ xaadim jiite na lii nga xam ne nii moo di Rock Énergie Leewtoo point net lan ko jàngatee waaye nag daal mbir ma moom tàngoon na saal ba ndax Cheikh Sow ma jiite woon de Cheikh dañ ko ne léegi président d'honneur lañ lay def mu jóg amub garaamu bam demu yoonam ne leen defuma ko tey suba waxi noppi man vice président laa bëgg a doon ma waaru ca lool man ndax nag nga jóge ci président ne vice président ngay xëccoo loolu doy na waar su waaye ba tey nag ñu dem ci Leewtoo point net mu ngi nuy wax équipe ba ne na jàppal président d'honneur yi ca la njëkke kii nga xam ne nii mooy Amadou Ba ca président d'honneur yi la bokk maire Moussa Sy Birame Ngingue président ba nag moom ka nga xam ne léegi moo jiite mooy Khadim Gadiaga ay vice président am na kii nga xam ne ni day mooy Moura wala boog Mara wala loo ci mën a dégg daal toftal nañ ko ay vice président moom Khadim Gadiaga Daouda Seck itam moom troisième vice président la ñu naan ko Carlos ak kii nga xam ne nii mooy secrétaire général ba moom Aziz Diagne lañ koy wax trésorier général ba Assis la am na ay at suyam tamit yu ñu ko toftal waaye ñeneen ñoo xam tamit yor nañ fa ay ndombo mooy entraîneur ba kenn kala di Pape Mbaye directeur technique ba kii nga xam ne nii moom moo di Aline Jonn moom lañ ko nommé ñoom ñu nga jar ñoom itam ñu nga ca biir ca supervisé gaag taxawu xale ya mu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom Rock Énergie defar waat nañu waaye loo ci mën a moom asama tàngoon na ndax coowal xaalis yëngu woon na fa lool lool lool waaye nag loo ci mën a dégg daal mujj nañu déggoo kon ba fal lii nga xam ne moo di seenu bureau ba nag léegi doxala ca des feneen foo xam ne tamit ab yëngu amoon na fa wala boog wàcce nañ fa nit yéegal nit mooy les seen amateurs Leewtoo point net la ñu ko jëlee kii nga xam ne nii moo di idaali ñu ngi tal léegi nag mu jiite woon kuréel ga léegi mu nekku promoteur mu mel ni nag gaa yi wàcce nañ ko wala boog démissionné na ka nga xam ne moo ko jiite léegi nag mooy Gora Ndoye léegi nag moom moo di président des jeunes amateurs kii nga xam ne nii mooy Ibra Diouf mooy secrétaire général ba Bada Fass tamit moom mu nga ca biir trésorier général ba tamit kii nga xam ne nii moom moo di Baba Diaw lañu koy wax ak ñoom moor bu parcelle mu mel ni kii daal ñoom seeni mbir noonu lañ ko doxalee dem fa nga xam ne moo doon ca parcelle leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci Leewtoo point mooy lu doy waar ab xale bu ñu dey dafa génn àddina ñu koy wax caatu Bambey nekkoon mbër te ndaysaan di xale bu ndaw nekkoon école de booy gànjool mu mel ni combat bi mu mujj a bëre fa fa mu ko jongante moo doon ca Bambey digganteem ak mbayti numéro 2 ba nekkoon école Mor Fadam te léegi mu dem écrit wàllu kon dañ naan rek inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna fa kullu waaw yàlla mooy wax ay waxam nee na daal ku dund danga dee lu tooy danga wow mu mel ni ki daal dañ koy ñaanal kon yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana moog bépp jullit waaye itam fi may tëjee mooy ñii ñu dénk Khadim Gadiaga dañu laa dénk nee nga yaay président bi wala ne nañ yow la Gora Ndoye yow la ñu dénk kon fexe leen rik waay ba ñu leen dénk la ñuy xaar ci yéen nangeen fexe jox leen ko ndax yaanu doy moo gën a wóor maa leen di doy salaamaaleykum mbokk yi sur Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen euh, jaajëfal di leen wax namoon nañ leen trop weekend bi guddoon na ak activité lamb bëriwul ñu namoon leen trop ñëw ak yéen tey ci lundi bi ak seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour ànd seek euh, sama mag sama xarit chéri Teneng Babacar nuyu naa la ak mun a ree chéri Teneng da koy ree ba. <laughs> waa àddina tëdd noonu ay sotti olof na xel xer bu seet xer bu tee sàkket da cay daru. voilà noonu la fa demee maa ngi lay nuyu di la fay sama rak sama xarit di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ñëpp ah, fu ñu mën a nekk si àddina bi rek di leen balu àq di leen baal di ñaan yàlla buur bi mu boole ñu jéggal comme nu ñu koy waxee rek tey leen di waaw weekend bi amoon <laughs> njëkkee ci li nga xam ne ni amoon na si weekend bi muy AG bi doon am fecc Rock Énergie mooy Khadim Gadiaga lañ mujjee fal comme ni ñu ko annoncé woon mais tamit AG ba bëri woon na ay yëngu-yëngu Babacar waaw xaarim ga jaga moom lañ mujj fal comme niñ ko waxee xam nga AC ba amoon na ay yëngu-yëngu loolu nag mook àddina ànda maanaam mbir mu ne moom yëngu-yëngu terewu koo dox l'essentiel que yëngu-yëngu boobu li ñu ciy soxla mooy que ni mu nekk lu nga xam ne rek day commencé ci jàmm jeex si jàmm parce que nit ñi duñu bokk xalaat ay association ak ay kuréel ak jiit maanaam mbiru mbooloo moo demee noonu Cheikh Sow moo fa nekkoon jiite yaa ngi dégg bi fa defe naa dem yàlla moo njëkk a jiite bi yàlla def mu jóge fi yàlla na ko yàlla yem xare ko aljana jiite ko moom itam def la mu waroon def Xaadim Gadiaga tey ñëw jëlaat place bi ah muy loo xam ne dañ koy rafetlu parce que xaar cas de Xaadim Gadiaga bu ñu ci wax moom foofu la takkee ngeen ay sëtu baree fa bokk na si ñi formé équipe bi yaakaar na bëree fa ba yàlla def mu tekki ngembam di encadré mbëri tey suñ demee nag ba waa équipe bi yëpp mu taxaw mu doy leen ñu def seen âge tabb ko comme seen njiit du ñu mën a def lu dul ñaanal ko yàlla mission boobu ñu ko dénk mu réussir ko mais tamit di ko jox li nga xam ne moom lañu ñu xalaat en tant que frère mooy que ni ndénkaane dafa metti Aïssatou tey eh, bu ma la nee yaa ma doy loolu sas naa la mais nag <laughs> ya waaw tey tey nga doy voilà li wóorul daal mooy tey ma doy leen force moom nag comme ne nañ koy yaanu doy yaanu doy nag aw sas la te lu diis la kon yaa ñu doy ñu ñu ko wax waa Rock muy mbëri yaak encadreur yaag waa parcelle a ah, yàlla na ko yàlla dimbali ba mission boobu mu man ko matale parce que loolu rek moo ci des fi mu nekk nii parce que nag fi mu nekk nii fu wax jeex jëfa fa des fi mu nekk nii wax jeex na amatul détail amatul nii na amatul na falaat nañu président defar seen bureau lépp ñu defar ko joxe nañ benn bureau mais c'est provisoire dañ ko bëgg defaraat parce que kii di Cheikh Sow moom nee na vice président la bëgg bëggul poste ak yeneen détails xam ne war nañ ko rek la xam naa dañ laalaat bureau bi incha allah ah, waaw Cheikh Sow de man loolu mu wax sax man dama ko faral di yow nga ñu la comme président wala nga bàyyi comme président di laajaat vice président moom yaakaar naa bu fekkente ne hiérarchie ni muy doxi tuuti fekkee dañ ko def président d'honneur baax na bu fekkee dañ ko def conseil baax na parce que kilifa la te mag la kon nag nañ leen di déglu rek ba xam ne ñuy laalaati bureau bi mais mais ñun daal li ñu leen wax moom loo ci mënti dégg li nga xam ne dañ leen koo dénk parce que dénkaane du loo moom dénkaale moom li ñuy bañ nga jaaw leen dénkaane ak sa yëf yi bopp yaa ngi dégg nañu fexe ba liñ ñu leen ko dénk ñu fexe ñoom ñi ñu ko dénk ëllëgee lañ leen joxoon bu ñu koy delloo ñu delloo ko ci lu nga xam ne nii dina am yokkute am satisfaction totale man daal loolu laa leen di ñaanal te loolu laa leen di conseil waaw waaw Babacar dañuy jógee Rock Énergie daal dem seeti ki nga xam ne ni mooy Khadim Ndiaye ñi doon ko woowee le boucher de ren Khadim Ndiaye nag jël na décision tekki li nga xam ne ni mooy ngembam daal di concentré wu ci beneen euh, vie laa ko mën a tuddee ubbi agence de sécurité am fas yéene mën foofu tamit beneen carrière professionnelle. waaw loolu la sunu làmb xëy tey muy loo xam ne ni lu bees la ah mu bàyyi làmb muy loo xam ne tamit ak sant la. parce que nekk ci métier di ko pratiquer di ko pratiquer ba yàlla def nga xëy tey bàyyi ko sant la am na ñoo xam ne laata ñuy bàyyi seen carrière yàlla yàlla daf leen fee jëlee te du seen ñàkk fulla am na ñoo xam ne ci biir carrière bi nekk seen diggu ndënd la leen dara dab mënatuñ ko yeggale yow comme yàlla dimbali na la nga bëree bëree ba taxawal sa ne bàyyi na ak sant la kon ñu koy ñaanal yàlla li jot a des ci dundam yàlla na lépp nag ay ndam ci kanam ak ay defal ko ko defal ko njabootam defal ko bépp doomu aadama parce que moom tamit vraiment nekkoon na mbër moo xam ne si biir làmb ku am fayda la ci làmb moom Xaadim day xeex day bëri boo xoolee sa champion yi mu jàng yi mu jot a bëreel moo xam daan nga ko moo xam daan na la mais boo ko amee di nga xam ne am nga adversaire de taille ndax moom du ko ko yàq fenn biir carrière bi vraiment riche na trop ci ay ndam yu mu am ak ay match waa benn match ni nag ay défaite comme ni ñu ko waxee mais li ma ci xaw a jubantitu su ma jumul Xaadim Ndiaye euh, mook bu dee deux fois ne da ko daan deux fois ma jumul dañoo daanante kon parce que yaakaar naa Xaadim Njaay daan na Zallo Zallo it daan na ko ko yaakaar na te mu faam mais ñu ngi ko ñaanal daal yàlla euh, retraite boobu jik ko Touba sécurité boobu mu ubbi tamit yàlla na barkeele ni Touba barkeele parce itam nit ki ah vraiment waru ne bàyyi naa lam rek croiser les bras comme tey moom foofu mu jëm daal di loolu mu ubbi muy société bu bees yàlla na ci am ndam moom Xaadim Njaay ñu koy ñaanal yàlla daal parce que tamit exemple bu baax a baax si làmb waaw. dañuy jógee si Khadim Ndiaye euh, dem seeti ki nga xam ne mooy Boy Niang ginnaaw bi nga xam ne la de defoon na sorteem wax tëkku ba Boy Niang tamit moom génn na wax ne na combat bi nag mun nañ ci xaar gaaw parce que mun na def. une seconde comme mun na def une minute ndax combat bi moom lambu dóor mën nañ la dóor fa ci arbitre bu génne seen diggante prib dip mën na faa am lewaatoo waa natt la koros forcé mu dóor dóor la ko nga wàcc mën nañ la song benn song tamit ci ay secondes yu new ñu daan la kon lu lépp waaye tamit mën na jeex tamit si temps si 45 minutes yooyu ñuy wax yaa ngi dégg kon daal combat boo xam ne nii bu nar a méttee la ñëw na ci lu ya comme li mu wax tamit loolu mën nañ koo war a xaar parce que moom mooy xale moom moo ñëw tey am lu mu bëgg ci combat bi kon defe naa bés boobu moom booy Niang li ko war mooy mu jaay boppam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wane boppam wan ne kii dama bëgg a ñëw dem fi ma bëgg a dem te moom du ma ma fay tere waaye nag li may leen di xamalaat daal mooy communication bi am avant combat bokkul ak li am si biir làmb parce que làmb réalité gi dafa am yaa ngi dégg euh, ñoom ñëpp ku ci ne bëre bi ngay bëre du sax bëre xale bëre mag ngay bëre te ay mag leen kon yaakaar naa ne new ma combat bi du jeex ci wala une seconde waaye nag nañu yónni yàgg xaar ba xam waaw mais man daal xam naa ne communication avant combat Lac de Guiers li muy wax avant ñuy avant combat bi dinaa ko téye booy ñang dinaa ko té waaye nag la may jàpp en cent pour cent mooy bu arbitre génne seen diggante waaw nañuy doxale su ko roog foofu foofu la mbir may safe <laughs> waaw kay dañu jigéen foofu noonu dem seeti beneen combat moo tax diggante Gris 2 ak euh, Reug Reug mais ñoom incha allah samedi dañoo war a def euh, tamit beneen jàkkaarloo xaar fa beneen bataille psychologique ginnaaw bi amoon euh, Kër Massar bi yoon nag ñu ko bëgg jàpp si téléthon bi nga xam ne nii Luc annoncé na ko le 25 incha allah. waaw loolu am na solo combat boobu tamit combat bu metti lay doon parce que ñaari mbër yu masta daanu ndaysaan ñu war a bëri te il faut am kuñ daan loolu moom ñu nekk ñoo xam ne tamit fi mu nekk nii foofu ñuy dégg ñoom la dëgër di fa dégg Euh, Balla Gaye 2 ak ñoom Gris Bordeaux ñoo ëmb seen fa la teg seen bët yi te itam ñu ngi ci yoon wi leen fa yóbbu parce ay xale yoo xam ne yàgguñu ci làmb mais wane nañ tey ay ñu nekk ñoom ñaar ku ci ne tey mérito nga dem ci kaw ah samedi nag ñu war def seen beneen jàkkaarloo ci seen TV loolu muy lu nga xam ne nii ak benn téléthon boo xam ne pour jàppale suñu père booy bambara comme ni ko li ko ni ko lig Nicolas annoncé woon muy loo xam ne ñu ngi ko ci ñaanal yàlla rek mu réussir ko parce que tamit nit ki nekk ci ay nekk benn métier am ci ay jafe-jafe yow nga ñëw nekk promoteur fas yéene ko soutenir woo sénégalais pour ñoo jàppale la ci loolu duñ mën def lu rafetlu ko di ñaanal yàlla tamit lig loolu mu jël comme initiative yàlla na ko réussir ak jàmm combat bi nag combat la boo xam ne daal <laughs> waaw tëgg na combat bu neex moom lig Nicolas Gris de Reug Reug Babacar dañuy jeexal ak euh, benn tiis boo xam ne dal na ci kaw lamb muy caatu Boy Bambay ñu yëg ko si weekend bi mu nekkoon euh, mbër nekkoon fële ca écurie Boy Gandiol moom la fii yàlla jële Babacar ñu koy jaale mbokkam yëpp ak képp koo xam ne rek si euh, lamb nga nekk ñu ngi lay jaale ki nga xam ne ni mooy caatu caatu Bambay waaw caatu Bambay day wax dëgg naa ne xam naa ko parce que bokk bokk naa bokk ci ñi ko Euh, mujj wala ñu commencé enregistré parce que su ma juumul benn enregistrement la am wala boog man mën na am yeneen mais daal euh, daaw bi mu waree bëri ji Bambey combat bi mu mujj a bëri moom mbaytin bu nekk école de Mor Fadam mbaytin 2 te léegi mu nekk Géejawaay wala mbaytin junior mu nekk boog di moins fële écrit waalo moom la mujj a bëreel ca Bambey petit production moo ko tëggoon euh, muy nekk xale boo xam ne nii vraiment nekkoon école booy gànjool dëkk bawal ah, nekkoon espoir tamit parce que vraiment xale la bu kii yoon dafa ñàkkoon sax combat boobu ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te jéggal ko barke weeru koor bi liñ ci wax yëpp ci ay ngëneel yàlla na ko jiitu ci biir bàmmeelam mook bépp julli bu tëdd ci suuf waaw di jaale ay mbokkam di jaale waa Bambey di jaale tamit waa Bawol yëpp di jaale axlu àddina rek moo tëddee noonu ay satu demal ak maa ngi ñëw la ñi fi nekk comme ni ma koy waxee fayda bàyyiwu leen fi ñi dem tamit vraiment ñàkk fu la yóbbuwu leen dafa fekk ne rek yàlla moo amee baat bi mooy borom kun fa yàkkun mooy nekkaloo mu nekk mooy bañ a nekk loo du nekk kon daal yàlla na koy yërmande sunu borom fekkee ci biir bàmmeelam moo bépp néew jullit bu tëdd ci suuf barke yonente bi sallallahu alayhi wa waaw Babacar dañuy eh, wax amin rek ci ñaan yooyu noonu di ko ñaanal bépp eh, néew boo xam ne rek fekk na la foofu noonu wala eh, ñu ko jiitoog ñu mu jiitu ñëpp ñu leen koy ñaanal Babacar ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ni ñooy suivre Leewtoo TV di leen jox rendez suba incha allah mais balaa boobu dañuy gërëm Mam Talla suñu Baye Fall ci caméra bi Ousmane ci montage bi ak équipe Leewtoo TV bi yëpp di gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi safoo Leewtoo TV. am na solo Aïcha comme ni nga koy waxee rek di nuyu internautes yi parce que ñoom bu ñoom dara du sotti yéen ñuy suivre ñëpp fu ngeen mën nekk xam nga ñoom Ousmane Diop Ndongo Fall Benzema Tuuti Yaay Sarr xam nga Khadiros Ndiaye Baye Zal soxna Anna Cheikh Bintou Fall ak tamit ñi nga xam ne nii ñoo nekk fii ci réew mi dañu suivre ku mel ni Mor Mboup tamit di sama nit ba Paris mu koy nuyu ñu am ci jox leen bërki dem ba comme ay ay ay ay distinction yoo ak Pam représenté groupe bi ca Thiès di nuyu ñëpp ñu nga xam ne teewoon nañ fa les jeunes amateurs tamit démb ñoom tamit ñu doon def lu mel ay ndogu yàlla def ñu sensibiliser seen bureau indiwaat ki nga xam ne nii mooy Ibra Ndoy mu jiite groupe bi yaa ngi dégg idaali ñu ngi léegi comme moom tamit mu wàcc di wax ne àddina noonu lay doxee di nuyu ñu ñuy suivre ñëpp Aïssatou fu ñu mën a nekk comme ni nga ko di la nuyu di nuyu Talla di nuyu euh, Lébu Kumba Fall di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci kër gi ñoom yàgg Biram ak Fleur ki nga xam ne mooy Adja Thiam di ko nuyu bu baax a baax mais Aïssatou tey nag ci terrain militaire la ñu génn maag yow xanaa yi ñu sol kon ñuy ne ci réew mi di ci jiital seen tutelle muy le ministre des forces armées parce que tamit ñoom du baax mais Aïssatou am na loo xam ne dañ ciy wax rey bi ñuy rey nit ñi nañ ciy wax loolu dañ cee war a wax na nañu ba nit yàlla moom moo war a faat bakkan fu yoolu nit ki doyatu la nga faat ko loolu yàlla nañ ci yàlla musal nañu àndaat ak suñu xel yi te dellu yërëm jigéen ñi Babacar surtout instant yi jigéen ñi chaque jour viol meurtre viol meurtre jigéen ñi fu mu toll nii nag sonn nañ trop wax dëgg neex yàlla il faut que sa cesse Babacar jigéen mooy sunu yaay mooy sunu soxna mooy sunu jigéen mooy sunu doom jigéen dañ ko encadré xam nga yërmande am suñu diggante ñun ci nit ñi ñoo war a yërëmante il faut ñu yërëmante ku nekk tey li ma lay li ma yéene son bopp ma yéene la ko bët bi may xoole sama sœur ma xoole la ko su ko defee jàmm ne ñooy mais nag am na yoo xam ne daal àddina jaru ko dara jaru ko yàlla na yàlla dimbali ñu ñun ñëpp te suñu ay xel ak suñu ay xol ba di nu xiir ci ñuy xalaat lu baax te di ko def parce que nag yàq baaxul de yàlla nañ si yàlla musal yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ay satu fay amin Babacar yàlla na fi yàlla def euh, jàmm loolu la ñuy tëjee di leen jox rendez-vous suba incha allah.